bismillahi wa ala millati rasuli wa manhajil xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci guddi gu tedd gi guddi gu tedd gi di laylatu mawlidi nabi ñu ko ku tedd ki waxee ca jazbul xulub laylatu mahwiriya bi laylatu mahwi taabi wa tuhri zi taasumi ginnaaw bu ñu siyaaree kilifa gi sëriñ Mouhamadul Muntaqa ziyaare Sidi Abbas ibnu Cheikh Ibrahima Fati siyaare sëriñ Moustapha Hafsa njabootu borom daaru gi yëpp ziyaara Serigne Moustapha njabootu ku tedd kii yëpp ziyaare njabootu Seydina Ousmane Gëlé ca daaru ak Chukori borom daaru ak Seydina Abbas ak mbokki taalibe yi fa nekk diggante daaru ak sukkoori yëpp di ziyaare xulafaa u yëpp xalifa yëpp ci diine islaam ziyaare kilifa yëpp di ndokkeel itam njiitu réew mi te di leen masawu ci coono yi ñoom ku leen mere rekk da nga comprendreul ndax li ñuy daj metti na lool te dafa mel ni dañoo dégg bayitu ku tedd ki xadda àqanil yow ma xubbul ahli wal watan xandar ki ma li zawil anwaari wal fitan li zawil anwaari wal fitan hmm. nga xam ne ku tedd ki wax na ni bu doon am gàllankoor dara waralu ko lu dul bëgg réewam ak ñooñ réewam waaye ba mu jógee ca martaba boobu itam di jàll di yéeg ndax martaba bu mu jógee rek dem ci beneen waxuma baatinan zahiran laa wax gis nañ mu wax ni waa jahad ñi bil bishri kulla layli maha nahaarihi wa taaba naydi maanaam 24 heures yi di laa ilaha illallah muhammadu rasulullah nga xam ne guddi gi ngay jox laa ilaha illallah bëccëg bi nga jox ko muhammadu rasulullah seeni bien seeni bien secret ya yàlla jox na ko ko nee na looloo sedd xolam ñu gisaat it mu waxaat ni waa jaxani bil bishri kulla yawmi wa kulla shahrin wa xaw mi mu mel ni kon li des ci ahlu dawla ci waa état bi mu mel ni kon bu amee luy des li des rek mooy ñu référé ci ab joxoñam ndax moo ko wax moo moo ko wax ni ko moo wax ni yàlla daf ko jox li baax ci guddi gi ak li baax ci bëccëg bi moo tax muy guider peuple am kon dafa mel ni bu dara dee des rek mooy ñu tegtaloo ci moom ndax li baax ci guddi gi ak li baax ci bëccëg yi ku ko yor ak li baax ci bis yi ak li baax ci weer yi ku ko yor kooku boo yëngu ci réewam ndax nee na yor gi mu ko yor moo tax muy guider peuple am di leen won yoon wi ni leen yoon waa ngi nii moo tax nag ba nekkee muumin ba noppi nekk muslim nekk murid ba nekkee mumin nekk muslim nekk muhsin nekk murid jéem a nekk saadix jéem a nekk nabil ndax nee na ki boole yooyu muridan sadiqan wa nabilan lay won yoon wi uriili wa ci maliki sabila kulla muridin sadiqin nabila waaw kon nan def lun man ak lu nu mënul ba buñ ne ay murid la ñu itam ñu fas yéene doon ay sadiq buñ ne ay sadiq itam buñ ci rafetee njort ñu fas yéene doon ay nabil ay nubala pluriellement kon mu mel ni rais bi di président Macky le président de tous les sénégalais bu fekkee am nañu lu ñuy dese mooy loolu ku tedd ki nee na secret guddi gi ak secret bëccëg bi ak secret bis ak weer yi moo ko yor nee na looloo tax muy giide peuple am loolu leer na nañ kon projet de société am dafa jot boroom guddi gi nga xam ne bi muy ñëw. suñu borom di ko yabal ngir mu tëj mursaluun yi mu tëj leen moo ñu naan ko xaatimu nabiin wa imaamul mursalin faveur bi ko suñu borom defal subhanahu wa taala jàng nañ ko tedd ki ne madda ilaya nafa fil kaw nay ni bi jaahi man wulida fil it nay ni ndem ci bisu altene ci la feeñ woon ca Makka ku tedd ki wax ni l'émergence ki nga xamante ni bii mooy le maître ici-bas nekk le maître le maître de demain après la mort ici-bas et dans l'au-delà maanaam ki yilif fii ki chef fii chef fële nee na moo ko jox mu yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na mi nga xam ni mi ngi juddu ci bisu altene nee na kooko ko jox njariñ njariñu àdduna ak njariñu al gis ngeen ca jazbu alhamdu la wax lil xaqil mubin man kaw nu hul yee yabin alal kitaabil mustabin maha jamihi niam jamihi niam jeexal nay wax alhamdu lil xaqil mubin louange bu doon féminin danga naan louange à la vérité lil mu bin maanaam lim foofu nee dal daal ki mat a gërëm dana ki ko moom mooy ver ki nga xam ne moo amee vérité absolue mooy xaqul mubin te nee na ci téere bii di alquranul karim di ay waxam ci la koy gërëme ci la koy sante téere bi nga xamante ne bii lépp luy xéewal ci ay leer boroom na xëñ na ko ci biir waaye lu mu ca teg ahmadu rabbiyal azim bu ko defee kon alayhi salaatu wasalaam muy boroom guddi gi dafa am ku ma doon waxal démb ma ne ko danoo toll ci jamono boo xamante ni bii Iblis représentativité am dafa daj fépp à travers le monde waaw fu kenn nekk ndawul Iblis ñaareel la fu ñaar nekk ndawul Iblis ñetteel la hmm. waaw ñi ciy mën a mucc rek. mooy ñi nangu ñi nangul ku tedd ki nangu ko jox seen bopp waaye boo nanguute jox ku tedd ki sa bopp ci jamono jii doo ci mën a mucc waaye bu dee ñu ne dañ ciy mucc lu tax hawazani lahu min asheytaani wa xaadali manaa fexal awtaan moom yàlla yemul ci musal ko ci iblis rek waaye njariñ ñi dëkk yépp la ko indil moo ko wax te ay waxam du deñ kon ñun lu xew lu xew ci nun al hawa lan war a xool wa nafs wal wa dunya lii xew ci ay reyaateeg dëgg la bu ñu reyee nit ca France wala ñu rey nit ca almaañ wala ca Amérique wala feneen day gën a siiw waaye Sénégal gi ak fudul Sénégal ak sous région yi Mali ki Côte d'Ivoire ki Guinée ki yooyu dangay dégg ñuy rey am déet fan yi képp da di dégg ñuy dee am ñuy dee. waaye du ñu ko jox importance pourquoi duñ ko joxe importance ni ñu joxe importance yeneen dee te dee dee rek yooyu itam nit ñi nañ ci bàyyi xel ñu rey kenn rek ñëpp yi waxte bu ñu reyee fukk kenn du wax lu mat a bàyyi xel la waaye loolu yépp muy tubaaboo muy naaroo muy anglais woo ku mu ci mën a doon nañ leen jàngal kanay Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul nañ leen ko jàngal <laughs> dañ ko jàngagul rek waaye bu ñu ko jàngee rek bu ñu jàng nañ fexe savant yi savant yi savant yi nañu wax savant yi xam kanay ku tedd ki xam ni mu nekk sauveur de l'humanité <laughs> hmm? ki ate ki ate ni science la gëm waa ko ndax dina jàng le Coran na jàng alquran ndax dina xam wa innaka la ala xuluqin azim tagg gi yàlla tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jikko ndax ki ate ndax ki ate dina ko xam lii kat la nañu fexe ba tubaab yi naar yi itam naar yi itam nañu fexe ba ñu xam ni nañu fexe xañ ña am nañu ko xam ci ñoom waaye bariwul waaw comme communication xew na savant yi nañu yaatal communication yi nañu laa biire nit ñi nañu laa biire naar yi nañu laa biire tubaab ndax Serigne Touba irham jami al wara la wax boromam yaa maalikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jami al wara yaa hadin rada waaw alwara moom fas yeeg mbaam yi sax ngi ci biir moo tax faw ñu yaatal yërmande ji Serigne Touba du ku ñuy limité fenn il est le sauveur de l'humanité moo ko amarani rabbi bi an usarriha bi annani malazun wa mafzun nañu yaatal mbiri waaye nag def fii ne àjjana moom def fii àjjana xanaa ci sa xol waaw ku tedd ki baaxee la ko ni ma ko baaxee nga xam ne àjjana ngay dund waaye nag bu dee ci yeneen yi moom nga bëgg lépp doon àjjana ni àjjana jeenu jëm loolu mënta nekk <laughs> loolu te loolu taxul yàlla indi ñu fii di daf ñu fee indi ba noppi dinu nattu dinu tegal ay épreuve ak ay balaa di xool ba xam waaw yi mu teg lan mooy nekk suñu réaction ndaamal daaru mu otti de maam Thierno Birahim bu ñu ko diw dafa am doom alhamdulilah lay wax diw dafa faatu mu ne alhamdulilah waaw xamewul naqar ak bànneex ba ko ku tedd ki laajee wax nañ ni ceer Thierno dama bëgg nga wax loo bëgg ma defal la ko mu ne ko lu yàlla dogal mu neex ma <laughs> waaw te nun noo foofu ci moom lan bokk loolu may wax ji mooy royukaay bi leneen la ca des. mooy am maa jëmmi teewaay bi fii mel na ni ñëpp teew nañ fi waaw mel na ni ñëpp teew nañ fi gis ngeen li xew ci àdduna bi xañ lii daa mënta ñàkk rek waaye fintalu dañuy tere sax mbooloo muy daje waaye bu dee ci biir kër gi ci biir saal bi moom eh, amul amul wàññeen ndax waxi ku tedd ki leen fii wax waxi borom guddi gi alayhi salaatu wasalaam ngir jëmmi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ndax ñun bu ñuy xam yonent bi moo tax bu ñu koy reconnaître Serigne Touba tax kon moom lañ koy sante kon ku tedd kii lañu koy sante waaw waxoon naa leen ko keroog dinaa ko waxaat fii ngir ñëpp dégg ko ku ko dégg xam ko man am naa ay tuut tànk ay awlaad waaye musuma tuddee yonent bi doom Serigne Touba tax ma tudde ko bu góor tudde ko bu jigéen te ñaari yooyu yëpp ci 2020 bii la ci at mii te ku tedd tax ma def ko ndax xam naa ne ku tedd ki def ciy bég ndax xam naa diggante ma ku tedd ki hmm? damay faral di wax ni gis nga booy def dara te jublu ci lu baax def ko ngir jëmmi Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul ndax plus ba tax maddali al xusna wa maddali zayad man li yaqulu haka qabla maddi yadd plus ba tax du lu baax rek ngay wut bu dee mooma day gën a baax du yem ci baax day gën a baax <laughs> loolu leer na nañ bu ko defee rek wax naa ko Ablaye sànq ci biir Ablaye Bodé solidarité mutlaqan dafa jot loolu moo ne ku tedd ki loolu lañu diggal de bokk xalaat bu ñu bëggantee ba noppi ñuy bokk xalaat waaw tey dimbalante di jàpp jàppalante loolu lañu digal kenn mun ta fexe nag ba ñëpp bokk fu jëm ixtilaaf bi moom allah kulli xalin nu koy gis mën nanoo bokk doon ay doomu aadama bokk doon ay africain doon ay sénégalais doon ay croyant doon ay musulman doon ay aspirant ak yépp mën nañ ko bokkule waaye nag benkee ñànk yi duñ ko bokkule waaw <laughs> ah, ndax kii dee am taxawaay kii doonum ndaama kii doonum njool ki xees ki xereer kii ñuul noonu la adduna baaxoo bu ko defee na ku nekk toléré toléré toléré say façon yu moroom benn façon képp la ku ne war a xool ci sa moroom mooy li muy dundi ci ku tedd ki yee ca des nga maandu ca waaw ndax maandu al ard la nag lu am solo la waaw kenn ku nekk na nga xool ci sa moroom la muy dundi ci ku tedd ki na la doy bu la leneen doy waaw te loo ko mën a dimbalee juum nag du mën a ñàkk jàdd yi du mën a ñàkk waaye bu ñu dee dimbalante di observante waaw ku nara a juum ñu jubbanti hmm? waaw te ñëpp waajal nag fukki fan yeeg benn ci novembre Thiès waa Asabul Janna ñoo koy organisé retour ku tedd ki bi mu jógee Gabon xam ngeen ni ku tedd ki màggalu Touba gi nga xamante ni bii ci taarix dañoo wax ne dafa waxoon ni saa yu ñëwee nañu ko ciy sant la boroomam ba mu ñëw ba jàll ñu wax ni itam moom dem ga ba muy dem ca coono ya ak jafe-jafe ya booba lay santlu waaw dikk gi nag moom comme victoire la bànneex la ñun xanaa te ñu yaakaar ko tey ak ëllëg xanaa am nañu sañ-sañu nun tamit feete dikk ga li kat a tax ren ñu koy yaatal ma ni waa asabul janna nañ ñu ko la ànd kook waa diwaan ñu organiser ko Thiès. Hmm. loolu itam aw bakkar fegu laa ci wutal sama bopp ndax la ma fa ganee àdduna waaw hmm. ndax lenn lu nekk rek dafa war a am daliil daa war a am sabab li tax ma ni leen nag nañu fas yéene ren moom waaw ñu organiser ko Thiès ba noppi te yaatal ko ko defee ay professeur rek ko séq nag ndax waa Asabul Janna ay professeur lañu ak i enseignant ak i étudiant waaw ko defee nag waa diwaan fu fi waay mën a nekk ci réew mi rek ku nekk bitim réew mi itam boo bu la ci yàlla yóbboog jàmm ñu ñaan fekke koog jàmm ku ci yàlla yóbboog jàmm nga cay teewlu nga koy teewlu rek ko defee incha allah la fa war ci wolof ci discours ya ci wolof ak arab ak anglais ak français loolu yëpp ñoom Mamadou ñaa ñi nga xam ne ñooy waa asabul janna euh, dinañu waajal yooyu ba yaakaar naa ni daal ni mu war a yaatoo dina ni yaatoo nun ñii nag nga xam ne nooy bambis yi ci waxin rek ndax ku nekk bëgg a doon bambis nañuy solidarité ci li généralu Bamba di wax ci Cheikh amadu Bamba Xadim Rasul def ci sunu fulla ak sunu fayda c'est très important waaw ndax mu jug jamono daf ca doon dafa bokk ci œuvre yi gën a kiimaane ci mu jug jamono waaw bu kenn xeeb dara ku ci mokkal benn bayit sax baax na waaye nañ ci solidarité ci sunu biir waaw ndax dañoo bëgg mu tase nu ne waaw mu tase nu ne moo tax bu ko defee nag lii moom dama ne woon bala ñoo tàmbali gàmm gi rek ma junj ko leere laale waa adduna ni Serigne Touba yore solution problème yëpp yëpp nag laa wax waaw yëpp ndax bu dee tawat ji dégg ngeen la ma wax mun naa àll ya bi xulumil asfiya wa bi kitaabati ya kulla dashfiya xam nga loolu leer na loolu leer na na ñëw ci moom rek waaw ñoo ngi nii takku nu masque xam nga te masque xew na te dara du jot dara du jot ndax dañoo gëm loolu masque yi bu ñu koy takk dañu koy takk rek ngir nekk ay sénégalais chef d'état bi ak état bi génne seeni dogal sitoyen yi war cee topp ci cadre boobu lañ koy defee waaye du jàggee na ragal feebar wala damay feebar wala damay dee déedéet. te tedd ki jàngal an nafu wa durru min arrahmani laysa min al bidaani wa sudaani donte bari na pexe dugal ci programme itam court moyen et long terme wàññi yokk et cetera yooyu yëpp yooyu yëpp waaw faw nag xanaa dunu ay nubala bu ñu dee ay na nabil kay wax dëgg yàlla na ñuy settantal xam lu yenu maanaa ak lu yenuwul maanaa du dëgg te ngeen baal ma wasalaam bismillah